Landbert Sen TV bonne journée lañu woté bëss bu jot ñu ci bay suñu ngir na gunge leen ba seen manam bëcc gi wala sax journée bi yëpp mëna aw ci yoon ni ngeen ko bëggee waxtu bi ni mel nak daal di jot ñu wara jox leen li ngeen yittewoo ci walum xibaar duma ci wéet dama ci ànd ak ki nga xamné rek moom mooy Elage Ahmed Aidara Elage nak suba gi. suba gaa ngi nii rek sante la bu baax. Hmm. sant askan wi. waaw. donc nga def nii baax na ni ni ni ni ni yi temps ban ban ban ban kalpe nga for. kalpe hmm? jula dula jula jula luy kalpe ak bunaar jula julay jaaykat jula boo foree seen kalpe kay kon feeñ na feeñ na waaw ah, temps ci tànku Pape Bess laa ne rek hmm, moom temps yi xam mu xaalis baadu moo lay jox yooyu temps yi kay rédaction bi kenn xiifatul ndekki añ ah.

Euh, mooy coow li nga xam ne moo am démb ca tribunal. lan ban coow moo am xam nga démb maa ngi la fiy expliqué ma ne la Karim Wade bu dee ca côté bii dañ ko yóbbu ca tribunal. tribunal waaw moom it am na koo xam ne moom moo ko yóbbu ca tribunal. waaw ndax ay tuuma mooy Alburi Ndaw. ñoom waaw kay dossiers yi maanaam kon bokkul bu dee lee moom wàllum créé la woon bii tam beneen tribunal la woon. Mhm. ñaar démb dañ faa waroon nañ ñëw daal waaye sax dañ koo mujj dàq. dañoo doon layoo démb waaw kay mais nag Alburi Ndaw xam nga. kii di avocat bi. Mhm. ñoom ñaar daal waa PDS dañ leen doon caxat caxatee di leen yuuxoo. maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf waaye maître moom ñëpp xam nañ ko. am na ñoom damul ci poosam dafa mën defante de. defante naag ñoom démb ca tribunal ba mu saf. sa tribunal bi. layoo ba amul waaye ñoom layoon nañ seen. layoon ba kay ah layoo day amul moom lu officiel boobu. foofu noonu waaw. waaye lu officiel. fii layoon nañu ba mu neex. ñoom ci seen biir bu baax fii. jàkkaarloo libéraux yi maître El na leen carrément ne leen waa PDS yi duñu dara ah moom loolu la wax moom it. sambañ na leen ko fa fu ko ko gars yi saañee mu roof leen ko ba maar di taal. waaw ah, moom nag moom ah? du bàyyi mu sedd. xaaral ba ci ka xaaral ci journal yi di ñëwaat ci après. dina dinañ la wax tuuti ci li ci lim leen wax. ci lim leen yàq ah, biñ koy yuuxoo ak naan dañ koy saag ak yooyu. Mhm. moo Alburi Ndaw daal nii lañ leen def. mais ci journal bii. waaw di tribune ba léegi. am na benn waay boo xam ni. Johnny Ba lay wuyoo. Johnny Ba. Johnny Ba moom. waaw moom américain la wala. mabee ma si jaaxal sénégalais la mooy président convention euh, du Fouta. ah Johnny Ba mais jegeñaale Ablaye Wade. moom lu mu xewle. teg nañ ko loxo. ah. li tax ñu teg ko loxo nag mooy da doon menacé menace de mort. ni mu doon menacé noonu. loolu beneen journal la ko bind. beneen journal. waaw. am na mu doon menacé kon di ci dikkaat. ñooñu kay bu ma la waxee ñi mu doon menace de mort. dégg nga ma gars yi xanaa dañuy bindantu waaye moom loolu nekkul. laas lu mu ci wax moom laas yéen kaay ñag ñëwoon ñun ba tey ci la ci coow li nga xam ne moo am au lieu mu nekk règlement de compte tribunal waaye réglement de coût woon sa sa tribunal ba diggante euh, maître El Hadj Diouf ba ba léegi ak waa PDS mais maître El Hadj Diouf moom dafa xamal waa PDS ne leen képp ku ma ci jege dama lay wàccee wàcc nan mooy kii di wax dama lay wa dama lay wàccee comme li mbëri di wax mbëri di wax dóor nga daan voilà nga toog li Tapha Tine di wax rek li ko Balla Gaye ne boo xeexee ma xeex bu ne ko bis boo xeexee ma wàcc la. kon mbir nga ne lam ji lam ji lam ji bés boo lam bis boo xeexee ma wàcc la ah accent boobu noonu waaw boy boo xeexee ak man ma wàcc la ma wàcc ma wàccee la bu dóorante amee rek ma wàccee la dama door bi toog lam bis bu ci dóorante amee ma wàcc la nga wàcc la dëpp hélas Hadj Diouf nee na waa PDS bu ko ci jegee mu wàcc la mu wàcc la waaw koy dégg mais ki nga xam ne nag mooy garde mbërëm xaw na Alburi Ndaw. Alburi waa ki kay garde benn kenn waa joo xam ni garde corps Ablaye Wade la woon. moo ko dóori kurpeñ foofu ba mara di taal. moo moo moo dóor kan ay kurpeñ. moo dóor garde corps Alburi Ndaw. ay kurpeñ. waaw ay kurpeñ koo xam ne garde corps kii la woon Ablaye Wade. Ah, kon moom jot na ci am ay kurpeñ. di mu yow di tribunal ba atte amu fa atte amoon na fa. Walfadjri moom lu ñu wax. Walfadjri ñëw ak ñun sax ci audience boobee nga xamante ne nii tàngoon jër la def. Mhm. maître El Diouf le dossier bi ci bopam mo intéressé wul procureur motax tax mu dàq maître El Diouf loolu yamu ci dé nee na ma agressé ma dóor la balu fetal. moom yamatul si wàcc wàcc. non non non waaw mooy wàcc rek. ma ah waaw wàcc façon. mais El Hadj Diouf nee na ko agressé. wàcc la wàcc la. <laughs> El mais nag ma am ne yii dafa baax ci suba tel gi quoi ñun ndekkee ko waaye seen i ab des rek di ma indil cool tool chaque jour ci kaw dégg moom mooy wàcc waate foofu ci kaw wàccee gars yi dafa nekkee ah. waa bees kay rajo bi yëpp la wàcce rédaction danaan la ku fii wax ma wàcc la ma wàcc la ku fii wax ma wàcc la populaire ku mu wàcc moom le populaire kay li mu wàcc mooy généralement sur Seck mi nga xam ne moo newoon semga mhm. moom nag la mu le mooy Sénégal maanaam euh, terroriste yi mën nañ ko tegu bëtti am na ci ay prox ndoll yoo xam ne lu ci nekk ak banlieue yooyu am na ñoo xam ne daal maanaam yey leen ci yenn yi nag mën naa yomb lool terrorisme sax laay bañ nag man terrorisme man terrorisme moom man du ma sax ko du ma ci yàgg ah, Alboury Ndao nag rëcc na démb rëcc ci caxat-caxatee léegi yi nga xam ne maanaam naroon nañ ko ko def fële ca ca ca ca tribunal ba journal bi nee na bu yeboo mu sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy gendarme kon moom jotuñu ko wàcc bu ko gars yi jotoon ba léegi wàccee nañ ko libération libération ñëw ngeen ci Henri Grégoire Diop ñi nga xam ni <laughs> maam Mbaye tey sa sa sa dërët neex na rek dafa mel ni xaalis tey. Henri Grégoire euh, surna libération nee na. Mhm. CREI bu moom fi mu nekk nii comme sabar bu tas. CREI c'est la guerre totale à la CREI. oui parce que Henri Grégoire Diop mi nga xam ne mooy président au tribinal mhm. dóor na ab lettre Yaya Ba assesseur bi tekki woon ndomba tànk. men dóor na ko ko mais ñu bëri dañoo yaakaaroon ne.

bëgg a toog daal ci bennoo ah, bëgg ko def ndëgër laay laaj daal la ci samp tey journal bi ah, dégg nga loolu ah, bennoo moomu dana ñu amal sax séminaire quatorze février quatorze février waaw waa bennoo waaw mhm. xam naa pour seen bëggante bi ñu gën koo ñu gën koo dëgëral waaw carte mariage bi ñuy joué Saint Valentin pour gën a dem bëggante nekk benn booloo février wax nga dëgg amour bi dox seen diggante gën a dëgg ndeysaan balaa kenn di wàccee morom ma <laughs> am na sur quotidien yow ak ñun ci njàng meeg njàngale mi le 17 ak le 18 février grève lañ la ñu xaati moon daal jàngalekat yi dañoo jàpp ne buur da koo respecté wul waaye tamit bàyyi leen ko mu liggéey mi ngi doog a ñëw yooyu yëpp jàpp nañ ne jeex fini l'état de grâce defante ñoom si lañ toll fu mu nekk ah, moom la ñu gis tey enquête lu mu gis enquête yéen nga xam ne moom la ñu indi ci fonction publique ni réformer mm-hmm. coppite yi ñu indi ci wàllum énergie coppite yi ñu indi ci njàng mu kawe nguur gi nag nee na c'est fini julli tubaab kon dëpp moom non non non dellu ca ginnaaw moom mënatul am mënatul dellu ga mukk ci këru àdduna le quotidien le quotidien ak ngeen ci xeex terrorisme ak ñàkkum kaaraange gi armée bi ci bopp na waar armée bi ci boppam nag armée waat nag bu ñu neexee dëppandi defaat gàjj euh, waaw kay yeex ñoom seen ñett ci ay roppalaan ak ay hélicoptère renfort renfort gars yi jot nañu ko ndeysaan dégg mm-hmm, le soleil le soleil yéen kaay ñëw ak ci premier ministre bi ba tey nee na plan Sénégal émergent yokkute la go xamante ni ci benn génération mën nañ ko am ñaar yoon. ci benn génération léegi nga dégg ñu né la génération 10 ans ba 10 ans. 10 ans ba 10 ans waaw kay. légui mom nee nañ. maanaam am yokkute goo go xamné waroon naa am ci benn fukki at. Hmm. mais plan Sénégal émergent bi buñ ci sukkandikoo. ci benn fukki at bi. mën nañ ci am yokkute ñaari yoon ñaari yoon déggoo ma de. Ah, ah. déggoo ni mom la le PS e, c'est doubler la croissance en une génération. loolu de mom Euh? waaw kay grand place nag la ñu koy jeexalee nag ak la nga xam ne maanaam moom lañu moom moom lañu ubbee ca fañ tegoon suñu baaraam waaw kay ci ki nga xam ne jooni ba da jàpp sax turu ah déedéet ah, kay waay menace menace nga wax di te xaw ma ñan la menace voilà jooni ba mm-hmm. nee nañ président Macky sal waaw la menacé njiitu réew mi ak ministre de l'intérieur ki yor kaaraange gi ak jiite réew jiite réew ma menace de mort nga wax de menace de mort yónnee leen ay sms di ay message Joni Joni Ba moo def loolu lu ma rek mooy dëkkale gis nga Joni Ba mii waaw euh, jardinier la woon ci ci ci ci euh, palais wu Omar Bongo Ondimba ca Gabon ca Gabon fa la ko Ablaye Wade gisee ba yey ko ba indi ko Sénégal waaw mu nekk PDS transhumé woon na dem APR léegi dikkaat waaye Ousmane Ngomo ko waat ak Ablaye Wade mu dellu si mu roñu ñëwaat mais enquêteur dëgg bi ñu jëlee portable am fekk nañ ci menace yooyu nga xam ne moom la menacé Macky Sall ak Ablaye Daouda Diallo ci portable am ci portable waaw fekkaat nañ ci portable am ay message yu mu doon yónnee ñoom ma dikke ñang euh, nu mu tuddati euh, Oumar Sarr Samuel Sarr ba ci téléphone portable personnel u Ablaye Wade ci ci biir portable lépp ci portable jooni bi jooni jooni ba waaw l'homme jooni Jóob Ba moo def lool waaw léegi teg nañ ko loxo teg nañ ko loxo ngi dig aha waaw jare seen ay ay kiyam ñoo ko jàpp loolu jar na faja la dëkk si ta faja waaw fële dëkk teg nañ ko loxo mi ngi dig léegi nag kon wàcc nañ ko wàcc nañ ko <laughs> wàcc nañ ko suba gi Joni <laughs> waa ci kaw ne ma Joni war kër ma ne nañ ko wàcc nañ ko jaajëf xamat xamat tafaatin non seulement suma mbokk la ba man suma yaay séeréer hmm. sama gars yi nag di ma ko tooñee koñ ba wàcc ma yéen séeréer yi nii ngeen di waxee xuloo naa ci ba sonn ndax tafaatin bu amee xeex hmm. ma wàcc la bu amee jàppante maa la sut foofu mais ñaanal yàlla bu am xeex ndax bu amee xeex ma wàcc la <laughs> bu amee xeex ma wàccee la eh, amee xeex ma wàcc la hmm. ko dóor mu wàcc gaa yi ne ko dóorante bi est-ce que dina wóor mu ne buy am dóorante muy wàcc muy wàcc buy am dóor muy wàcc ne ko ci sama gaa yi nag jàpp ma koñ géej waaye di ma ko tooñi dama leen séeréer yi mënoo leen soo wax wàcc wàcc mu xuloo ci ba mu saf <laughs> jaajëf kon dig daje bi altine lay daje bi xanaa altine ndax yàlla sax ñu noppalu tudd def ak noppalu waaw eh, si ay bés si njeextalu ay bés bi incha allahu rabbi eh, jàngeen jëf mu nekkoon pàcc bi njëkk bi si li ngeen yittewoo ci wàllum xibaar ñaareelu pàcc bi jotaay xibaar bi lay doon 7 heures 45 ma dikk fi jukki leen ko ba mu jàppandi